Salam maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen jaajëfal ci teewlu bi di xaar tuuti nit ñi connecté wu ñoomal waxtaan bu tuuti rek salaam salam Ousmane Sow Chérif Diaté yep, waaw maa ngi nuyu ñëpp di di leen ñaan nag ngeen partager ngeen aimer vidéo bi pour ñi nga xam ne bëgg nañu waxtaan bi continuer ñi nga xam ne itam xëy na li ñuy waxtaanee du leen gënal wala bëgguñu waxtaan bi egg maa ngi leen di ñaan ñu bañ a signaler vidéo bi wala ñu bañ ko jéem a dagg parce que bu ñu waxul fii itam dinañ wax feneen euh, bërëb waxukaay yi moom

comme li ma wax rek dama am considération bu bëri ci ñi nga xam ni ñoo may safoo via réseaux sociaux yi ñi nga xam ni itam ñoo ànd ak man ak xarit yi mbokk yi ñi nga xam ni itam euh, ñoo nekk ak ñun loolu moo tax euh, ñuy def sorti ñuy def ci euh, Facebook bi parce que xëy na munoon nañu bu dee askanu Sénégal la ñuy waxal rek xëy na dañuy choisir yeneen yeneen xeetu Euh, canaux de communication moo xam télé la moo xam radio mais wax deug yalla gis na sa su nek euh, fi nga xam ne ñii ci réseaux sociaux yi fofu la ma foofu la ñu ma teg euh, te ma tek leen fa itam bay damay participer lu bare ci waxtanu nit ñi di ci def sumay commentaire di partager di publier itam pour wax won nit ñi nu ma gisee ak nu ma xalaatee ak itam di gëna a jege nit ñi donc li fi xew fan yi Euh, laajoon nañ ñu bare ñu laaj ñu ci suñu xalaat euh, jéem nañu fan yi euh, bokk ak yéen nu ñu nu ñu ko dundee jéem nañu itam fàttali leen tuuti suñu jaar-jaar parce que am na ñoo xam ne xëy na bi ñu xamee yàggut wala amuñu am na lu leen dese leer ci suñu jaar-jaar moo tax ñu partager li nga xam ni fa la ñu jaar parce que ñun. ay ndaw lañu bi ñu commencé ci euh, xeex bi ñuy xeex ci réew mi ba léegi bépp euh, position bu ñu jël dañu koy assumer euh, ñun mësuñu aspirer même à ne dañuy dugg ci langue politique bi pour di ci jouer ay rôle wala di ci am ay responsabilité dañu nekk juste ay citoyens yu jàpp ni dañu war a dañu war a bokk ci combat yi war a dëgëral suñu réew injustice nekkoon combat bu kawé bu taxaw bo xamni ñepp ñëpp nangu nañu ni injustice bi fi am euh, ci Karim Wade am ko ci Khalifa Sall jéggi dayo hein ah surtout euh, ci plan politique parce que am na yeneen xeetu injustice sur le plan euh, ci société bi ak ci digënté nit ñi ak yoon mais li sur le plan politique la ñu fess ci assumer sun ay position parce que dans la vie nit mën nga mën nga juum doomu adama bu ne da ngay juum soo avancé il faut pas avoir peur de faire des erreurs l'essentiel rek mooy euh, euh, juum yi ngay juum mu amal lañ jëriñ. ça te permet nga am expérience nga jang, nga am lu yokku ci yow euh, choix bu ñu mën def rek ba légui assumer nañ ko Partager na len sank pour ñu ko gisul ñu dem xooli ko partager na len vidéo bu nga xamné ne ci situation euh, élection présidentielle 2019 lan moo ci comme suñu taxawaay ma jité won mouvement bu ñuy doon wowe xalaas ci mouvement bi mu am ño xamni dañu waxtaan parce que man nonu lay nonu lay day fonctionner moy sumay and ak ay nit xelu kenn tout xeebu ma donc biñu ñu am ñu bari ci ñun ñu ne dañu bëgg voter euh, euh, président Ousmane Sonko xamuma Ousmane Sonko dama kay répéter chaque jour xamuma président sa Seck li am solo ba am solo mooy kuréel lañu mu am ay ndaw ñu ne sumu biir majorité bi bëgg a président président sa Seck am ay itam ay émissaire président sa Seck yu ñu ñëw seet si wax ñu euh, programme am wax ñu ay mbiram parce que ñun ñoo bokk FRN il faut que itam nit ñi di bàyyi loolu xel Front de résistance nationale euh, ñun opposition bi yëpp fa leen doon toggandoo bu avant C25 la ñu amoon C25 bi président Macky Sall réduire ko ba mu nekk C4 ñu jóge ci sunu C25 boobu li waral sax ñu bare gisuñu ci photo coalition Idy 2019 bi du càgginu dara c'est parce que seulement ñun dañuy yéex a jël position li tax ñu yéex a jël euh, position mooy dañu Andon, ak président Abdoulaye Wade and bu rafet 2014 ba 2019 mu def ñu sax ci liste législative yi ñu un ak Nous xex ay principe euh biñu eggé 2019 président Abdoulaye Wade wara a ñëw Sénégal bu day yéen a koy le 7 février la waron au Sénégal ñu yakam ci ñi dem ci coalition yi ñi dem ci coalition yi ñun ñu xaar ko ba mu ñëw bi mu ñëwee itam ñu toog ak euh, jour bim'a ma bi président euh, Abdoulaye Wade di recevoir Terubi. bi même jour boobu le recevoir président Ousmane Sonko euh, danaka ñun ñoo waron sax jitu mais président Ousmane Sonko dafa daggoon euh, dafa dagone campagne am fu mu dem pour que gisante ak président Abdoulaye Wade donc ñu retardé sunu sunu entretien mom mu président Abdoulaye Wade ba paré ñu ñu tok xaar président Abdoulaye Wade mu ñëw ñu waxtaan ak moom bu ñu waxtaan ak moom nag ñun la concerné mais ñu waxtaan ak moom bu ñu waxtaanee ak moom ba eggali ñu jël suñu responsabilité en tant que ay citoyen en tant que ay ndaw yu farul ci benn parti mais yu ànd ci opposition bi ci ay principe ne mënuñu toog mënuñu toog te bokk ju ci élection yi partagé naa vidéo bi sànq ngeen xool ko ci la ñu dem def point de presse

te awma lu ma ci rëccu itam euh, awma lu ma ci rëccu parce que euh, euh, ñun suñu wareef rek la def suñu wareef mooy élection jot na gannaaw sax ba ñu xamee ni élection yi buñ ci duggee dañuy perte ndax président Abdoulaye Wade démontré nañu ko te ñun itam ci suñu jaar-jaar élection yi ñu fi jaaroon moo xam local yi moo xam référendum bi xamoon nañu ni carte gi dañu ko biaisé mais suñu devoir citoyen la ñu doon def suñu devoir citoyen il fallait que ñu vote ñu bare ñu ngi wax naan euh, euh, euh, dafa am ñu yaakaaroon ay poste dafa am ñu yaakaaroon ay patio ay seddo moo tax ñu dem voter le président Idrissa Seck loolu du dëgg nit booy wax da ngay wax loo xam ñu bare ñu demoon ci président Idrissa Seck ba ci vidéo bi ma leen yónnee bu ngeen ko seetaanee di ngeen ci déglu su may wax xam ne lu cohérent la ne naa leen dañuy voter mais bu fekkente ne taxawaluñu cadre bu sécuriser vote yi vote bi ñuy def amul njëriñ xanaa loolu leer na loolu ku koy def xam nga ni yow xam nga ni peut-être lii buñ taxawalul cadre bu laaj muy c bi sécuriser vote bi duñu am dara ci élection bi donc jubluwuñ ci woon ay séddoo ay pàccoo ay déggoo ci sunu biir déedéet dañ ci jublu woon montré à président Macky Sall yow ya tànn say candidat mais ci bir candidat yooyu nga tànn dinañ voter quand même dinañ def son devoir te on s'est battu vraiment jusqu'au bout presque 1 million de sénégalais voter le président Idrissa Seck yéné ko nak yéné ko ci bir 1 million yooyu ñun bokk nañ ci suñu courel suñu ay mbokk bokk nañ ci suñu xarit yalla xam na ni bare ay mbokk ak i soppe yoo xam ni ànduñu ci won sax ak man

da ngay avancer nak di tànn tey nga gis ñu bax suba nga gis ñu bon nga seppi nga continuer foog naa amul ben politicien tay bu taxaw fi Sénégal bu mëna wax ni mëna tabax Sénégal wala avancer avec des nouveaux Sénégalais yu takul fenn yu musul am ben responsabilité ça n'existe pas mo xam ñu nekk ci administration bi la mo xam ñu nekk ci parti politique la mo xam ñu nekk ci lenen ak lenen mais les gens sont obligés de faire avec des gens yu fi nekkoon avec des gens yu fi nekk ba tey il faut mu leer ci bopp parce que aussi dafa am yoo xam ne bu ko nit ñi di jaay du jar parce que parce que amul sens amul sens nit ñi mënuñu yeewu rek en 2020 wala en 2019. mille mag, neuf juddu màgg taxaw amuñu vécu amuñu passé. ok am na am ay antécédents ok am na ñoo xam def nañ seni i preuve am na ñoo sax bonoon nañu changer nañu am na ñoo xam ne dañoo baaxoon tey ñu ñu c'est un pays qui est comme ça beaucoup bëgguma beaucoup d'exclusion, beaucoup d'extrémisme, de de def de juger ses pères. Quatre euh, yi may jël je ne les prends pas de gaieté de cœur parce que quand même même si fekkente fait quelques années là, cheminé nañu ensemble de Manco à OFRN bokk ay table de réunion je xam Idrissa Seck moo xam waa moo xam ñeneen ñu nga xam ne rejoindre nañ ñoom Omar ak ñeneen ñoo xam ne dinañ rejoindre ci fan yi bu doon suñu sago duñu mës a yëkkati ay kàddu di ko teg ci seen di wax ci jëm na ci ñoom lu ñaaw te loolu taxuñu jóg mais je pense que ñoom dinañu comprendre parce que xam nañu ñu xam nañu suñuy principe xam nañu suñu yoon te xam nañu ne euh, ñun lu ñu gëmul duñu ko wax bu doon suñu sago Nous avons di def ay critiques wala di yedd quand au pouvoir bi la est yedd au président Macky Sall mais nous sommes nous sago nous, ñu euh, seppi ci qu'on biir parce que on nous a amputé Nous amputé amputés. amputé sommes xam c'est un bras c'est une jambe euh, c'est un doigt en tout cas l'opposition a été amputée encore une fois qui action bi am nouveau gouvernement bi euh, et c'est très dur il fallait euh, beaucoup de de recul pour réagir pas parce a assumé non mais c'est parce que il faut une ligne éviter parler sous le coup de la colère Mère ñu wax te dañu mère trop. dañu mère parce que si euh, nous voté n'importe quel candidat le résultat yi rek Qu'est-ce am nous gagné donc meluñu parce que dañu rëccu lu tax ñu voteel président Idrissa Seck parce que ñu voteel ko ak ñu ñàkk ko voteel xeex bi ñu waroon def defuñu ko quel que soit nu mu munti woon demee résultat yi ñu lay le jeu était biaisé donc rëccuwuñu parce que góor du rëccu góor du rëccu il faut savoir assumer ses actes assumer ses choix et en apprendre pour l'avenir li tax ñu mer suñu xol yi jeex mooy euh, on n'attendait pas ça de lui Nous, avons degré, de man su ay kàddu yoo xam ne leer dina metti parce que nous avons parti réew mi fa ay des am fa ay am di ci Nous technique André Petavan Nous sommes waaye lool xam ni va se reconnaître Je citer pour ne pas le déranger mais je pense que lu mu wax xam mon petit moom ci il a mal il a mal parce que euh, président Idrissa Seck un million de sénégalais yéné won nañ ko mu président de la république un million de sénégalais jóg nañu voteel ko un million de sénégalais choisir nañu ko moom donc li mu def tey quels que soient les motifs vous mu mën justifier ni mon moo tax mu def ko un million de sénégalais yooyu sont xol yi metti peut-être que am ci des partisans de de de de de de mi d'accord nañu ci li mais fi on ne parle pas de réew vous m'excuserez ne waxuñu waxu de mi li tax sunu wax sunu am ñu am ci droit wax parler, tax ñu am ci droit wax li réew mi di dem élection demul qui est en tant que parti politique dafa wut ñu ko gunge ku ne jël sa carte jël sa carte yaay jël sa carte papa jël say mbokk mobiliser leen ñu dem voter leen kon nag par rapport ak ñooñu da ngeen ñu amal un droit de respect un minimum un minimum de respect bu ngeen bu ngeen am envers ces gens la te lii tey président Idrissa Seck def def na ko tout une jeunesse toute une génération nous sommes comme nous. merci beaucoup Naoucha, Naila. merci beaucoup ni coupé vidéo li nga que def actuellement à l'ensemble de la jeunesse l'ensemble de ñi nga xam ne ñoo politique xam nga politique nga wax tay li suba nga wax le contraire sa dom wala sa rakk bii di ñëw ci sa ginnaaw bu ñëwee pour mu convaincre fay compliqué day metti parce que dañ nan, politiciens yépp ñoo yem gisoon nañ fi ku nekk surtout nak président Idrissa nekk rek nekk kilifa go xamni ni kilifa gu ñu nawloo la parce que li tax ñu nawloo ko won li tax ñu nawloo ko won moy mom dafa faral buy wax day utiliser alxuraan pour diko ko deugal pour diko diko diko diko diko diko di ko étoffer wa donc dal bobu mu andal, ak alxuraan bobu mu utiliser ak façon waxinam ak jaar-jaaram ak jaar-jaaram trajectoire ci sonu ci xex ci militer depuis marche bleue ci lenen ak lenen bu ñëwé ba taxaw bu ñëwee ba taxaw ba ñu ne dañu war a fal président Idrissa Seck nit ñi fal ko dem voter ñu sàcc élection yi mu ne reconnaître président Macky sàll su wëlbatikoo di waxtaan ak président Macky sàll ci li mu wax bu buggoon tey sunu rangoon ñi du tuuru daf ko waroon yëgal askan wi daf ko waroon yëgal sénégalais yi bu yëgaloon sénégalais yi ca ba mu noppee nit ñi di jaaxle ci lu tax mu noppi ken degu ko fan la nek bu sénégalais ni ci ci élection yi ak président Macky Sall kon bu du yëngatu du du du parce que les gens vont dire waxtaan bi mo jur li tax président dañu amputé wu ñun opposition bi président Idrissa Seck dafa bokku ci opposition Bok kou Tibir, Eferen, bi oposisyon biye pou bok, de Eferen a fe yon komunike, bou may salwi, ni mou kou yege, nou nou len kou yege. Ken ti oposisyon biye kou? Petet ke ay aliyem, Tibir, Réoumi, yege l nalèd, mi an tou ka, oposisyon biye bok kou nyon, kourel biye bok, yegu nyon. Tak gwo woul, yegle woul. Askan nou Senegal, tem yon e gye ne bok liyem, nou niko yege lèd. Konnèk? il faut que tu soyons à cadre parce que si wax bi président que Seck dafa wax ne pourcentage euh, avec ak président Macky Sall buñu ko bolé mu ay ah, avertir président Macky Sall ne ñun nous pourcentage parce que li ñu am dañ ko ko mais nous ci Nous nañu ci pourcentage dem Macky ñun ñu ngi ci opposition bi ñu nekkoon nit nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que nit mën naa juum nit mën na juum mais yàlla du juum te ñun ñëpp dañuy dellu ci yàlla dañuy ne dañu bëgg fal diw di xaar yàlla mu antu ko kon nag yàlla ci boppam moom moo ko antu kon dañuy sant yàlla rek te xam ni Euh, fekk ñu ngi jiital yàlla ci li ñuy def di jiital dëggu ci li ñuy def duñu ci am erreur yu ñuy rëccu waaw li ci des nag mooy euh, euh, fi Sénégal soxla woon une opposition forte unie foofu la président Idrissa Seck décidé dem rejoindre le président Macky Sall li tax may wax ci président Idrissa Seck te waxuma ci yeneen personnalité yi c'est parce que moom moo nekkoon candidat nit ñi voteel ko donc bu ay pexeem euh, bu ay pexeem antu woon tey moom mooy jiite réew mi waaw bu ay tey moom mooy jiite réew kon nag kooku li nga xamante ne li nga xamante ne yàlla daf ko ko naroon a dénk mu nekk suñuy kàddu mu nekk suñu destinée tey mu xëy jaar nii dem rejoindre président Macky Sall rejoindre ko ci yan anam nee na jël conseil économique et social environnemental bi mu waxoon démb ne amulul askan wi njëriñ amulul askan bi njëriñ moom la jël récupérer ko kàddoo ngi noonu ku mu doon sa kilifa itam boo xa taxawee fii di saaga walla di bind yenn commentaire yi nga xolaatal sa bopp parce que kilifa dalay doy ci kàddu day def di wax lu nga xamante ne moom moo amal nit ñi njëriñ donc donc kilifa da ngay def di wax loo xam ni amal na askan wi njëriñ nga sa kàddu yem ak sa ay jëf nga bañ ci dellu ginnaaw li ci des euh, li ci des muy mu wax ne aussi ci argument wuyu bi mu wuyu ji wuyu bi mu wuyu ji président Macky Sall dafa nekk ngeen may ma ma ko ma ma ma dindi kii parce que foog naa ni euh, amul benn njëriñ nga taxaw fii di saaga euh, demal nga wax ak sa njiit ko moo ëpp solo leneen li nga xam ne moo am solo pour ñu tontu ci itam mooy euh, président indi Idrissa Seck dafa nii dem bi mu dem ci président Macky Sall surtout résultat dialogue politique bi ak dialogue national Je may xamal nit ñi ñu déglu bu baax dialogue national bi depuis corona bi dañu ko acc ken reprendre gu ko donc amul une discussion buñ ci teunk gum opposition bi amna eu ñu fa nek ba man mi nekuma fa mais amna ñu fa nek te ba tey amaguñu luñu ba ñuy jël décision ci dialogue national Deuxièmement, le deuxièmement dialogue politique bi euh, commission yi ñu ngi tàmbali li gën a am solo ci dialogue bi li gën a am solo ci dialogue bi mooy audit du fichier électoral mooy exigence bi nga xam ne mooy permettre nit ñi bi nga xam ne mooy permettre nit ñu mën a def eh, voter mooy permettre nit ñi ñu mën a voter tànn seen njiit tànn seen njiit kon loolu jotagul exigence exigence boobu go fichier électoral bu transparent bu bu fiable nga dem wuy président Macky Sall lan moy problème bi lan nga ci jublu lan mo nek sa sa sa sa sa ambition lan moy sa ambition xamuñu ko mais il faut ñu léral nit ñi ni euh, du conclusion wu dialogue politique bi déedéet du conclusion wu dialogue national bi bi dem ci dialogue national bi tok nañu man mi xam dans la vie nous avons tok di wax sa amul njëriñ amul nga ñu suivre de temps en temps mais du fu rek expliquer jaar-jaar réunion bi def réunion nga c'était pour ñu dialogue bi l'opposition day dialogue bi bu leen wax l'opposition parce que président Maxal Sall ñun wuñ ko té buñu ñu suñu suñu suñu sunu nen yëpp jox ko ko bu ko tojé ñu jommi kon nak nañu wax une partie une partie de l'opposition bi ma koy wax président Idrissa Seck man ak mom ñoo tok face à face ci table réunion bop mom ci jëm bopam mu pour sonder parce qu'il y avait d'autres personnes qui ne non il faut assumer l'opposition que le dialogue il faut assumer y a des parti qui sont d'accord avec nous. comme sommes suñu position y y des yeneen parti yu d'accord woon ci dialogue Nous, ñu pour nous leeral ak pour nous éviter opposition bi parce que maintenant, le président Maxa, ce qu'il c'est pour diviser l'opposition Et ñun on a eu du mal à nous retrouver autour d'une table parce que nous, fii fàtte xaju fii ñun 2014 ba léegi ñu ngi ci kuréelu opposition bi di xeex si sunu biir 70 pour cent yi génn nañ dem wuy ji Macky Sall ñeneen ñi resté te à chaque fois nii lay demee situation day am dégg nga ñu ñu benn correct amoon na fi temps bu ñoom Modou Diagne Fada di dem ñu waxtaan sunu biir ñii nangu ñii nangu di dem am excuse ne dialogue bi ak discussion bi moo tax ñu dem ñu ne leen pour éviter président Macky Sall di yàq. opposition bi nañu wax une partie de l'opposition mais ñun ñu resté né demuñu am parti yu dem dialogue national bi am parti yo xamné sax nee duñu dem ci dialogue national bi mais dinañ dem ci dialogue politique bi problème du dialogue bi indi façon problème bu net suñu biir opposition bi PDS quitté wa Pastef maire ay wax am sen digënté dégg nga ñu ñu échanger ay wax ñu waat après ñom ay dem booj Pastef lu né def nañ ko fi mais lépp rek dans l'intérêt Général de la nation pour que nit ñi les gens ne le voient pas les gens ne le voient pas et aussi heureusement que les les acteurs les acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci réunions yi du ñu ci les minutes de ces réunions L'essentiel c'est Que les Fall mi nekkal Idrissa Seck moo la plupart du temps ci réunion yooyu As Babacar Gueye bi nekk chargé des élections moom leen doon bokkal réunion yooyu ñuy toog di waxtaan ak Idrissa c'est ci boppam vraiment jour yi nga xam ramené il est venu rejoindre ci réunion yooyu ñu am ci moom ñu jàng ci moom expérience parce que ay xale lañu mu am mu am jaar-jaar homme d'état ñu respecté ko ci loolu ñu jàppoon ni maturité pour mu am ci politique ak que chacun un am ci politique am na lu mu jàngat lu bare loo xamante ne bu jotoon ci réew mi luñ doon xeex dina ko réparer ñu jàppoon ni vraiment c'était un homme qui a changé qui a changé parce que on s'est dit euh, euh, il a eu des hauts et des bas perte ay élection demoon ba yaakaar yaakaaram tas mu foogoon ni dina baax baaxul mu reprendre à zéro lépp mu téye rek dugg ci Macky Sall fal ko mi mu génn ñu fekk ci opposition bi ànd ak ñun di xeex ñun japp ni yéene nañ ko mu gañ réew mi parce que ñun ku ñu yaakaar ni baax nga ci réew mi rek yéene nañ la amuñu kenn ku ñu ku ñu jàppal benn sentiment bi amul ñëpp lañu respecté mais on a eu très mal président Idrissa Seck vous nous avez déçus vous nous avez déçus parce qu'un homme aussi, euh, d'une aussi grandeur que vous, on ne s'attendait pas à ça. Euh, il faut aussi que les gens qui sont avec vous, ak yow ci sa la peine des Sénégalais Nous respectent la peine des Sénégalais Nous aussi ramené ne am de temps en temps je suis obligée de de de de bloquer certaines personnes ngeen Balma, ma fam ñoo xam il faut ma leen di bloquer c'était prévisible hein, c'était prévisible que loolu dina ci am euh, parce que nous, la demee Moi, Je ma demande de ñaan continuer euh, di aimer di di aimer partager vidéo bi voilà parce que c'était prévisible que loolu dina am parce que Sénégal dañuy far voilà dañuy far euh, sénégalais day far duñu far Sénégal mais dañuy far ci ay parti dañuy far ci parti ba nga xam ni bu fa fen nekkee sax dañu fay far et c'est dommage mais c'est dommage euh, euh, euh, lii ñu def nii nag président Idrissa Seck def c'est à nous de relever le défi le peuple sénégalais c'est-à-dire relever le défi mooy soit dañuy wone jikko gor ba képp ku ñu woor wala ku tas sunu yaakaar dootoo am ci sunu kanam kaddu wala boog euh, nga nek ñu nek jikko ay jaam ba lu ñu waaye def ñu defoo ko lu ñu waaye teg ñu tegoo ko voilà donc euh, il faut ñu accepter ne lu ñaaw lu ñaaw rek la lu rafet lu rafet rek la ku def lu rafet ñu dégg wax la ko mais ku def lu ñaaw itam ñu wax la ko loolu mooy àdduna loolu moo fi nek ndax ñun euh, li ñuy xex ni xexuñu ko pour ñu nek au pouvoir pour opposition non non nous sommes ñu amal solo position nous défendre position yu nous position yu position de principe Yo sommes fu Nous sommes en pouvoir sommes opposition en opposition. Nous nga fait ci nous wala défendre nga fait ci nous sommes en kese lañu la en opposition. Nous sommes président Idrissa Seck sommes Adamala. doomu aadama la mën naa juum mën naa réer mën na itam xool ay intérêt am nit nag euh, bu fekkente ne da ngay xool sa intérêt ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom soit ñu xool seen ay principe soit ñu xool seen ay intérêt kenn ku nekk yow yaay xool li la gënal man ànduma ak moom bokkuma ci partem coalition bi comme li ma leen wax toog naa xaar ba président Ablaye Wade ñëw ba ñu xam ni mënuñu ànd ak moom ndax danoo war a voter ci lañ jël suñu destin dem voter assumé ko demuñu ci ay campagne benn yoon lañu ñu a dem ci benn campagne euh, benn kii bu amoon au niveau de Guédiawaye waaw benn yoon boobu lu weesu loolu euh, demuñu ci benn campagne ñu jàpp rek ni itam sunu sunu devoir la woon rek ñu compter sunu ay sunu ay euh, sunu ay xob voilà donc def nañu lolu bu néewee ak bu néewul biñu ñëwé ñëwee euh, kenn waxuñu ni euh, wuñu leen parce que li ngeen yor dafa néew au contraire dañu ñu dañu ñu dañu ñu accueillir ma waxtaan ak moom itam te euh, je reste convaincu que lié politiquement politique moo ko laal parce que nit ki ma toogal nit ki ma toogal président Idrissa Seck mi ma toogal waxtaan ak moom ci biir saalam kàddu yi mu yëkkati wax ma ak façon bi mu ko waxee man gëm naa ni euh, lii mu def nii xëy na ay pression comme ni ñu koy waxee financière wala politique wala leneen moo ko ko defloo mais man de je suis vraiment surprise man nag dama nekk nit koo xam ni euh, du ma du ma waxal nit lu ma gëmul man de yéene woon naa ko mu jël réew mi waaye man de li mu def nii bett na ma bett na ma lool ba ci kanamu yàlla. jàppoon naa ni euh, àdduna lu mu metti opposition bi continuer di xex ba lu ko yalla jox mu jël ndax mom ci bopam mo ne won poste budul poste ko ko donc ni ak charisme bi maintenant c'est dommage c'est dommage pour la jeunesse may ñaan itam askanu Sénégal nous bañ ñu juger ci comportement de nos yi comportement de yi fi nous ñu bañ Nous ci juger ñu bañ juger ci comportement papa yi ñu bañ ñu juger ci comportement homme politique yi avant nous, nous jox ñu crédit parce que ça ne va plus être facile parce que de c'était déjà difficile c'était déjà difficile parce que politiciens à force nous jouer ci s'en ay cadres ak ci les positions. nous dem nañu ba sénégalais yi amatuñu euh, confiance

comportement bi ak acte bi président Idrissa Seck def bokk na ci li tax euh, sénégalais yi euh, dëddu politique bi bokk na ci li tax tamit sénégalais yi tuñu euh, sen rew amatuñu espoir amatuñu espérance ba tax tay ñuy dugg ci biir gal yi di tukki di dem di xaru ji ci géej gi di dem di dé ci biir géej gi ndax li tax ñu def lolu li tax ñu def lolu moy dañu japp ne ñi fi nek amuñu amatuñu espoir dañu jàpp ni ça n'a pas de sens de se battre parce que pays bi c'est kidnappé par des politiciens qui xam ni seen bopp rek lañ fi nekkal un acte bu poser posé président Idrissa Seck ak képp ku jóge ci opposition bi dem fekk président Macky Sall ci jamono ji xamal ni bokk nga ci li tax yaakaaru askanu Sénégal tas bokku nga ci li tax xalé yi di dugg ci gal gi xalé yi di xaru ji bokku nga ci li tax sénégalais yi pour son avenir et ça c'est dommage ça c'est dommage et rien que pour ça on est obligé de vous répondre on vous répond pas parce qu'on a envie de vous dire des choses qui vous font mal on vous répond pas parce que vous am envie de vous ci choix vous faites les choix que vous voulez mais les choix que vous faites ce sont des choix qui ont des incidences sur notre avenir à nous et sur notre devenir c'est ça qui nous qui nous qui nous fait mal ce qui nous fait mal c'est qu'à chaque fois que vous trahissez le peuple le peuple est blessé, et quand le peuple est blessé, le peuple se retourne de nous. chaque fois que ñun ñuy wàcc ci mbedd di wuti ay militants di wax ak nit ñi sunu liggéey dafa gën a metti sunu liggéey dafa gën metti parce que li tax sunu liggéey gëna metti moy yéen def jëf yo xamni kenn wolo nit parce que fu way gëna a rek fu way waxam gëna rafété fu way niveau am gën a woram gëna ngandé L'unit monte monte monte non, on non, non, non, du c'est ça le problème c'est pour ça qu'on est obligé de vous condamner on est obligé de vous dire le fond de notre pensée parce que li ngeen di def nous, ngeen koy def nous ay doom ngeen koy def nous ay njaboot ngeen koy def defu Vous ko seen ce kese vous faites. Vous sen bop kese ngeen koy def dem jël poste de responsabilité wala jël privilèges te une bonne incidence sur la population faites autant que vous êtes faites autant que vous êtes mais vous êtes convaincus que les actes que vous posez poussent la population sénégalaise à se détourner de la vie politique alors que nous nous passons notre temps à garantiser les gens de venir se battre dans la vie politique comment on peut y arriver Ni du gaz, ni du saoul. Ni du gaz, ni du saoul buñu gassé ba ñoo ci nekk ñeneen jaar suñu pax yépp képp ku ci opposition bi opposition Macky Sall malversation malgouvernance la le parti avant la patrie patio échec dans tous les plans éducation immigration emploi santé nga ñëw tay tu retournes voir le même Macky Sall nga rejoindre après beaucoup bëgg beaucoup de doléances des explications mais respectez-nous un peu si on nous respecte pas aussi nous faisons nous respecter faisons nous respecter en nous faisant respecter moi, là, à commencer par la presse quand quelqu'un transhume de cette façon-là parce que c'est de la transhumance amul benn tour mais quand quelqu'un décide de transhumer il faut qu'il assume les conséquences de cette transhumance oui quand on fait un choix, choisir, c'est renoncer. Quand on choisit de rejoindre Macky Sall, on renonce aux éloges de bravoure, aux éloges de persévérance, aux éloges de combattants. Parce que dans la guerre, on décide de say ngànnaay wéer ko dem fekki ki nga Nous xeexal il faut ñu acter loolu ni Il nga say nous presse bi nous mu ñu nous a des mooy di transhumer Nous leen di jox ay micro sénégalais di layal sen transhumance di justifier que expliquer di justifier que expliquer mu dem ba sénégalais yi jàpp ni lepp te c'est normal ndax ku am xaalis rek lo mënti def ci aduna da nga ci guen lo def ak lo wax di nga am say moyens yo corrompre ay journaliste def ay ay conférence de presse def ay activité ba guen ci yow la même personne bi doon def l'apologie de la transhumance yow yaay ñew taxaw di justifier la transhumance et on te le permet on te le permet, les journalistes te donnent la parole, la population t'écoute. Et on te partage même. Mais arrêtez de partager les gens qui, occupent certains actes. nit ki nga xamante ne dafa décider teg yenn actes, yi dafa dafa xaru ku xaru walla ku dee dañu koy fàtte gas dem ci lenen dem ci lenen loolu kese moy deug yombul nak parce que il faut ñu léral vous me déggee la politique me dégoûte j'ai mal j'ai mal parce que la politique doit le dégoûter parce que ce sont des gens des politiciens qui posent des actes qui dégoûtent la population et nous dégoûter Nous dégoûter beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises Nous nga nous jaralatu nous Nous ñun jeunes nous pour nous, nous sommes Nous intérêt lañ dañuy xëy di wax xëy di wax xëy di wax ba ñu xam leen bu ñu leen xamee xàmmee leen ñu am tour siiw ñu dem négocier seen bopp ñu jox leen poste ñu dem toog ba kenn benn jeune jaratul muy mobiliser wu di ànd ak yow di xeex ndax ay waajuram wóoruñu ko ay waajuram dañuy préféré mu dugg ci gaal gi dem xaru moo leen gënal ñu gunge politicien bi dem di def ay campagne ak ak di dem di xeex donc ngeen foog ni li ngeen def li ngeen di def def seen bopp ngeen ko def wala askan wi ngeen ko def ça fait trop mal. Mais comme on dit, Sénégal moo des noms. Sénégal monte des noms. Loi de def amal na lay lu def amal na explication. Euh, fofu lay waxate ci rôle de réveil de conscience citoyenne parce que les citoyens ils sont à l'épreuve ils sont à l'épreuve oui Aïcha l'appelle, merci vous Moi aussi je na covid bi moom moo tax covid bi moom moo tax covid bi nga xamante ne ba ñu ci nekkee ba léegi dañoo tumuranke gisuñu Idrissa Seck dégguñu ko woo nañ ko fu ne woo nañ ko ci rajo yi ci mbedd yi fu ne pour gis seen taxawaay donc bu fekkente ne ñëw na ba tey mu ne euh, covid bi ak situation dëkk bi metti gi mu metti moo tax mu rejoindre président Macky Sall bu lu a tax war na a la te xamni rew mi rew valeur la réewu kaddu la un kaddu la ñun xexiñ fi xex yeb ay respecté rek motax ñu ko euh, population bi au défi de leur dignité c'est-à-dire montrer que yéen ak politiciens yi ngeen di yi ñuy ŋàññ ñun ak ñoom bokkuñu jikko bokkuñu jikko mooy euh, bu ñu nous ñu dem ay milliards est-ce que nous on est capable ñu suul milliards est-ce que nous on est capable de nous détourner de leurs privilèges à eux pour voir suñu cap suñu avenir Ou est-ce que dañuy euh, toppaleen ci li ñu bëgg ñu ñuy mosal ay compal ni ko xale yi di waxee ay comp ñuy jox nit ñi ay xaalis ñu topp ci seen ginnaaw mën na nekk hein, parce que ici on a vu des transhumants ñuy feesal ay ay meeting waaw on a vu des transhumants yoo xam ni dañu transhumé biñ leen nommé nit ñi tàccu leen bravo bravo nit ñi tàccu leen des gens yu nga xam ni dañu am ay principe am ay valeur des fois kenn du leen faale parce que amuñu xaalis

ak seen envie ak seen yéene moom la ñu jël di leen ko xeexal asaaloo seen bopp saraxe seen bopp maye seen bopp des fois ñu bàyyi seen famille seen ay doom seen ay jikkër seen ay njaboot seen ay lépp di leen xeexal amuñu nag ay millions yu ñu leen corrompre mais am nañu seen yéene bu ñu am pour réew mi dox c'est aux de choisir c'est aux Sénégalais de choisir bu fekkente ne Sénégalais dañu bëgg ñu yor ay milliards yor ay huit huit yor ay quatre quatre di leen ko xooy ñu leen di topp di leen fajal seen ay soxla soxla yoo xam ne xaalis boobu ñu leen koy fajalee seen xaalis da yéen dañ leen joxoon ay poste de responsabilité ñu tibb ci lu bare denc bu fekkente ne loolu ngeen bëgg ñoo ñooñoo ngi fi ba doy sëkk bu fekkente ne itam sénégalais yu valeur yoo xam ni euh, avenir la ñuy xool li fi bàyyi ci dëkk bi ak liggéey pour ëllëg ñu boole leen ci ñu changer réew mi boole boobu ci lay ñëw pour appeler à l'unité de l'opposition parce que duma ci tàyyi duma ci tayi parce que man je ne crois pas aux individualismes man dama jàpp ne l'opposition doit être forte l'opposition doit être forte doit être forte le FRN doit être renforcé ceux qui ont quitté la table à cause de ce dialogue doivent revenir dans le dans ce cadre il faut que ñu sur nos feuille de route ñi nga xamni dañu àndoon réro nañu ñëwaat ñu tok ñu àndaat ñu continuer ñu xamni itam dans notre sang bientôt d'autres vont partir. Il faut qu'on se prépare psychologiquement à ça. Il faut qu'on se prépare psychologiquement à ça. Qu'on se dise qu'il y en a d'autres. Et plus distribuer du goudou, plus nous bar. Parce qu'au moins, on va se débarrasser d'une bonne partie. Tant que nous avons que la liste s'allonge, au moins qu'on puisse reprendre, renaître de nos cendres et puis avancer. Donc, nos oppositions, je les appelle à l'unité en tant que des jeunes depuis 2014 ñu avons ci cadre yépp unité boobu ba léegi ñu ngi koy on demande que ñëpp dajaloo kenn yëg sa bopp ba jàpp ni mën dem yow kese bu kenn sa ba ni ci contribuer na nit ñi pour un fichier électoral parce que ça mbir mi gunóor ngi mbir mi ay mbóot a ngi ci biir ay mbóot mbóot yu rëy a rëy mu ngi ci biir parce que li tax mbóot nekk ci biir mooy <laughs> fichier électoral bi war a mën a tax ñu tànn ku ñu neex ba léegi carte gi leeragul carte gi leeragul te te te tey jii carte gu ñàkk leer googu moo tax ñenn ñu bare dinañ dem ba xaddi léeg-léeg ñu ne nañ dem wéeru ci waa ji parce que moo yor caabi buntu yi te kum ko joxul doo dugg ci saal bi la bëgg nit ñi bëgg a dem am na ñoo xam dañ naan nañ dugg ci kër gi ndax ñu jege saal bi am na ñoo xamante ne xëy na mën nañu def ay voie de contournement wala jàkkaar benn bomb benn bomb ñëw daanu ñu dugg ci saal bi directement mais loolu yëpp wóorul li wóor mooy ñu xeex ba am fichier électoral bu normal ñu mobiliser wu te loolu benn entité mënu ko def il faut nit ñi ànd booloo pour mën a xeex bu ñu xeexee ba am fichier électoral bu stable fichier électoral bu dëgër bu wóor bu fiable ñëpp inscrire bu yee boobaa ku mu neex nga demal sa yoon ku boobaa ku mu neex nga jël say bagage dem yow kese élection comme ça au moins y aura pas de problème parce que di nga am fichier bu wóor bu stable mais fichier bii li président Abdoulaye Wade doon wax ku ci dem ak Macky Sall dix millions de fois mu dóor la dix millions de fois te kum ko jox dénk ko tabb la yow yaay dem parce que carte gee bala ngeen di tok fi nag ñuy def ay ki ba paré ñuy def ah, élection ba paré ñuy wëlbatiku di fi nekk di len jox ay livre blanc parce qu'on a fait beaucoup de livres blancs 2016 2016 def nañ ko ci référendum bi def ko 2017 ci élection yi def ko def ko ci 2019 yo xamné anomalie anomalie lañ ci bind kon bala ngeen di tok ba bobu ñuy bind anomalie di wax ay livre blanc nañu ànd ñu jóg bolo, ñu xex xex bi dañ ko war a auditer fichier bi dañ ko war a auditer ci dibi dialogue politique bi dañ koy auditer mais opposition bi bu ñu taxawul taxawaay bu ñu war a taxawee taxawaay bu mat taxaw xeex-xeex bi ñu war a xeex dinañ ko taxañ dëxëñ ko dugal ci ay mbóot yoo xam ni boo légee mbóot yooyu génn màtt nañ après ñu yor suñuy làmmiñ di wax rek yor suñuy live di wax yor télé yeeg rajo yi micro yi di wax te loolu foog naa ni am na lu ko gën loolu fàtte suñu bopp tey xeex-xeex bi le combat qu'il faut jeunesse bi di dugg ci biir gaal gi ñu mobiliser leen ñu and ak nit ñi xex pour que ñu mën inscrire ci liste yi mën voter mën fal ëllëg ki nga xamantene mom moom la Sénégalais yi bëgg fal ku nekk nga fal ki nga bëgg fal Lolu foog na moy li gën euh euh dama bëggoon kenn ku ne ci yeen ma wax leen ko ñu xamni euh élection yi Afrique tëddee mu ne Sénégal Afrique fichier électoral yi fi nekk moo tax Alpha Condé mu toog fee mu toog ñu gañe ko mu sàcc te mu mujjuwul fenn mu ngi toog fi mu toog gis ngeen euh, euh, euh, kii Ouattara quatre-vingt-quatorze pour cent la may boppam quatre-vingt-quatorze pour cent ndax fichier électoral bu ñu tëxëñ eh, fichier électoral bu ñu tëxëñ bu ñu sàcc sawaay demal fukki élection yow doo doo doo doo jàll donc loolu moo tax urgence bi du ma sàmba ma demba ma paate substance mooy am fichier électoral am fichier électoral te jóg wëlbatiku sol suñu ay dàll wëri askan wi di dugg ci ñoom di leen xamal ni lii am ñii dem ñun de lii ñu def métti du nañ ko naqaru nañ ko ànduñu ci bu ñu ñu ci boole bala ñuy perdre seen confiance parce que suñu perdre confiance su peuple bi combat yi ñu bëgg a mëne mais duñu ci arrivé ndaxte combat yi ñu bëgg depuis 2014, 2014, mille quatorze barki référendum bi oui bi ak non bi YouTube position Nous avons ne dañuy nous wal nous ñun ñoo après Nous sommes parce que dañu def ben ben pour que nous ñi daw dem dem euh, wal fajiri ñu ñu buure urne yi li tax li tax non bi oui bi gagné alors que non la waxon tay amna ñu bëre ñuy wax waxu laïcité waxu yeneen problème yo xamné mënon nañ ko régler ci oui beeg non bi mënon nañ ko régler ci oui beeg non bi mais les gens n'ont pas pu voter comme ils le veulent on a empêché aux jeunes de voter on a empêché aux gens qui étaient contre le pouvoir de voter tel lolu mom lañuy continuer kon nak bu ngeen bañé euh, ça va. nous avons ñu génneel ñu fi ay quatre-vingt-quatorze élections législatives. locale ça sàccaat euh, législative waxuma la il faut nous jóg il faut nous jóg toujours dans ma wax du appel à l'insurrection et alors si on appelle les gens à l'insurrection pour sauver ce pays il faut que ça se fasse c'est là où je dis encore euh, à la jeunesse qui est prête à se tuer en mer qui est prête à mourir Barça ou wala y a une nation au monde qui a euh, développé une révolution Nous avons une démocratie avons une alternance mais la la jeunesse ne s'est pas battue donc euh, euh, il faut que jeunesse bi nga pour faire des choses, taxaw pour di xeex di xaru ci ci géej gi ñu leen ngeen pour Sénégal vous voulez sacrifier pour des lendemains meilleurs sacrifiez-vous pour votre pays Vous ngeen sacrifier pour votre pays non seulement vous ngeen am des lendemains meilleurs parce que c'est une famille qui ko am et puis il n'est pas dit que vous allez mourir parce que nous, fii chaque jour nous ñi xeex manifester amul policier bu leen di réel amul parce que policiers ay sénégalais lañu comme Les militaires ay sénégalais comme ñun nous leen bëgg réew mi gënuñu leen bëgg réew mi li solution ñu ci exiger un fichier électoral exiger ñu am li ñu bëgg benn nit du ko def fukki nit ko def askanu lëmm moo koy def une masse benn parti politique mënu ko def ñëpp a war a parti yépp ndaw yépp jóg amul fukki nit di fukki nit di wax non non non Ils ont quatre jeunes 480 jeunes 480 une semaine 480 jeunes quatre cent quatre vingt jeunes sitting devant le ministre de l'intérieur pour exiger un fichier électoral mbir Mirmilaire. mbir mais quand tu te bats tu ne vois même pas 10 jeunes les gens te disent qu'on a ak sa soxla non nous un problème bop lañu tal construire nation ci ku di sa problème dañuy rek nit changer mais mbir mi dara changer système bi fi mon rek mo gis les mêmes personnes tour bi ngay changer mais bu askan jeunesse bi di jaay ngorom ñu jox la wala jox la poste jox la nga jaay sangor, top topp xam nga ni limi def baxul xam nga ni def Omar où sont ceux-là je ne sais pas je les attends après on peut pas dire que il faut que les nit def comme nit ni parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont été payés pour nous faire loolu du patriotisme patriotisme moy nga jóg xex pour ce pour sa devenir dans toutes les nations à un moment donné dafa am ñu jóg xex dafa am ñu jóg pare pour ñom rey seen bopp pour ëllëg ñu am ëllëg bu bu gën 2012 2012 ñun on était des militants du non au troisième mandat dañu doon ne ci mbedd mi di xex am ñoo xamantene dañu doon dañu doon ñëw ak ñun di xex 12 personnes ñoo dé 12 sénégalais ñu am alternance kan mon opponent Abdoulaye Wade en 2012 kan moo il y doole yor police yor gendarmerie yor armée mais bi 12 personnes dans le Sénégal dafa dellu ginnaaw dafa dellu ginnaaw kon waxuma la 480 personnes qui ñu 480 personnes bu deewoo politiciens, politicien bu pas naqare dootu fi des parce que dañ leen di génnee waale réew mi mais il faut qu'on mène les combats de notre génération aussi les combats de notre siècle ñun ban kon combat la ñu bëgg a mëne combat wu wax combat wu wax mom, ak live ak commentaire ak ak ak ak gagné nañ ko ce combat on l'a gagné parce que foog naa ni réseaux sociaux yi ñi créé sax ëppale wuñ leen ci ñun ëppale wuñ leen ci parce que du jour au lendemain matin au soir a un gis ay sénégalais ñuy exprimer wu di live di wax di yuuxu ku nekk ak sa façon Euh, Baba Diaw dinaa la tontu ci kanam bàyyi moom ma eggale tuuti donc pour wax leen ne leen pour wax leen ne leen amul benn peuple peuple ci àdduna bu développé wu te ay nit jóguñu xeex douze personnes ba ñu deewee président Ablaye Wade dafa dellu ginnaaw ñu bëri dinañ ne mais kii nan la mën a xeexee président Abdoulaye Wade après delluwaat ànd ak moom ñun dañuy xeex président Abdoulaye Wade ci troisième mandat parce que d'accorduñ ci mosuñu ànd ak moom avant nag. <laughs> répétition et pédagogie Nous sommes avant nous politique parce que on n'était pas d'accord pour que nous am nous wax Nous ñu euh, de perte nous France dem continuer combat bi combat injustice on attendait la reddition des comptes loolu nous avons dit les barons du PDS nous fi xam ne du jour au lendemain dañu nekkaat ay milliardaires immobilier de di taw ñuy Nous ñu àtte mbir mi ñu dem ba ci ñu choisir des personnes arbitrairement di leen di leen di leen di leen poursuivre au nous, ñu poursuivre leen ci li fi amoon muy cour des comptes nous justice nous crasi créer une une cour arbitraire ñu ne non non ñun nous ñu kenn dugal ci dañu utiliser daan da ngay juger au nom du peuple de façon arbitraire Nous retiré wu de ce combat ñëw di xeex injustice boobu qu'elle a créé loolu il faut mouler. leer on l'assume président Abdoulaye Wade contrairement à beaucoup de gens ñu am lu ñu reprocher ñun musuñu nekk PDS ñun musuñu ànd ak moom mais ñun dañu respecter président Abdoulaye Wade dañu ko bëgg sax ndax li tax ñu bëgg ko mooy li mu xeex Sénégal ci démocratie bu amoon ñaar wala ñett ñu mel ni moom ñu romb fi loolu itam mooy dëgg nit ki mën nga am ay erreur mën nga am ay manquements, ndax président Abdoulaye Wade bi ñu xam le président à après le pouvoir ñun le président Ablawad. Nous lañu xam le super homme président à Nous nga xam nit ñi na pour nekk dans ses grâces nous xamuñu savons nous ko xam nous ko rencontré Nous président 2014 lañu 2014 lañu xam mu nous taxaw nous Nous avec fierté avec fierté parce que ñun li tax ñu am fierté mooy bi ñu nekkee xale yu ndaw lañ doon lañu grand la ñu màggee grand yoof di dégg soppi bi ci suñu nopp yi dégg soppi bi ci suñu nopp bi xeex bi tar ñun ñu bëgg loolu kon bi ñu demee ba ñëw 2014 toog ak moom mu nekk un homme humble bu comprendre ni euh, chutam boobu dafa am ñu ko ci dugal ndax xëy na waroon naa mën a jaar par la grande porte ana ñu ko waroon ana tous les traîtres qui l'ont trahi ñu du côté de Macky Sall tay kon mom l'histoire lui a donné raison l'histoire lui a donné raison Kenen ku ko xalaatee ne len defal lu gën lam def kenen ku koy jugé wala nga di ko wala nga di ko ngay dénigrer président Abdoulaye Wade du nga ko juger yalla nala yalla may yow wala sa ko koo yaa xam mu def fi lu upp le président Abdoulaye Wade def ñu téye pour l'instant moom moo def ñu téye moom moo yóbbu démocratie fo xamante président Macky Sall da ko yob à dix ans en arrière ndaxte mom fichier transparent la fi bàyyi bu won woon loolu kenn du ko ci élection yi jox ñu personnalité neutre Cheikh Gueye personnalité neutre mu organiser élection yi bu du woon du perte élection yi accepter démocratie dem avec grandeur bu ko neexon mu am bain de sang bu ko neexon nit ñi duñu voter mu retenir les cartes lenen ak lenen kon nak ñun loolu motax ñu ba tey jii may wax ak yow gisatuñu ko déggatuñu ko mais dañuy continuer di am ci mom tiofel parce que mag la xam ni il était avec des gens pourris et des gens empoisonnés Lolo monta, mon mu egg fu egg il faut que ñu waxante dëgg ñëpp bu ñu àndulee du nous dem nañu arrêté suñu biir di xalabalante Qui baaxul qui est bonne, qui est, nous dem fenn parce que on a besoin des uns des autres ñëpp lañu soxlante ci suñu biir am na sànq ku ne FRN dafa trahir président Ablaye Wade comprendre l'eau, Baba Diaw Baba Diaw dali fort dama lay parce que li tax ma lay tontu dama la xam ko bind ma tontu la li tax ma lay quelque part ànd nañu ci ay combat yu bëri xam ngeen ci dara euh, bi nga euh, PDS dafa un FRN au FN, FRN ñun problème interne, interne parti suñu parce que ci parce que ñun foofu ay affaire au parti nekkuñu fa ay entité ñoo ci FRN si nous booloo ci biir nous le di a bu PDS nous problème ak Omar Sarr ñun loolu mënuñu ci parce que c'est un problème concerne le PDS merci Moussa il était mal entouré mal conseillé donc bi nga que le PDS nous nous représenté wuñ ko créé parti Sénégal xaw Sopi. suqali soppi c'est normal bu nous ni man wala benen entité wala benen parti adhéré ñu adhéré ko Ma Madické Niang PDS ne nekkoon mais bu mu ñëwee créer parti mais dañu ko dañu ko dañu ko baye mu adhéré du ñun ñoo fi nekk di wax ku juboo ak ku xulo ku nekk ci parti parti bi am problème parti bi moy régler problème mais bu nit ki créer benen entité ñëw euh, adhéré au sein du front ci turu entité bobu pas ci turu PDS dañu koy accepter donc loolu itam il faut ngeen xam mu leer PDS actuellement ni front bi ñu ngi dox ay tank pour que PDS ñëwaat ci front bi parce que dañu le PDS fort pour opposition forte dañu soxla sommes ñu qui PASTEF parti muy mouvement dañu soxla Nous sommes pour nous parce que encore une fois le fichier électoral yi euh, groupe parti nous il faut nous le Sénégal un combat national donc euh, il faut que nous nous ñu ñu ñu ñu nangu il faut ñu nous donc euh, euh, nous ñu de loin amul kenn euh, le fondateur financier du PDS je suis désolé ça n'existe pas au au au niveau du FRN on a toujours fonctionné aux cotisations activité bu amee nit ñi dañuy cotiser Nous Nous aussi des fois nous ñuy wax dañuy waxante Nous cotiser cotiser ñi fa nekk ñëpp dañuy cotiser Pape Diop di cotiser Boubacar Camara di cotiser PDS di cotiser ñun ñii ak suñuy maigre dañuy cotiser ñëpp dañuy cotiser amul kenn koo xam ne yow yaay ma Massamba wala yaay ma dem parti bu ci am député yow da ngay am quota parti bu amul député da ngay am quota donc ñun li ci des lijjantiwuñu ko franchement ay problème mu personnel ay parti jàmbur ñun suñu yoon nekkul ci loolu li am solo mooy ñun ñi des ci opposition bi Nous les continuer continuer reprendre le combat parce que le FRN est toujours là il y a quelqu'un qui a dit est-ce que le FRN euh, existe toujours mais le FRN existe toujours c'est très difficile quand même de toujours de toujours se tenir debout parce qu'il faut savoir que l'opposition prend des coups depuis 2014 à chaque après chaque élection il y a des départs après le référendum il y a eu des départs après les, les, législatives, il y a eu des départs. Après les, les présidentielles, il y a eu des départs. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Parce que tant qu'il y a le peuple sénégalais, qui est le principal opposant, il y aura des oppositions qui vont se, qui vont se tenir debout. Il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours une, opposition. Il ne faut pas vous focaliser Il faut se focaliser ci li nga xamantene mom mom lañu bëgg moy fiñu jëm té ñun combat yi ñi mëne woon ci opposition bi c'est les combats qui sont toujours là fichier électoral bu valide ñi nga xamni itam dañ leen téré bok té ñu wara bok à savoir au même titre nak Khalifa Ababakar Sall ak Karim Wade parce que dañ leen téré bok ak fichier électoral bu lèr bu ñame fichier électoral bu lèr bu subaa euh, euh, euh, euh, nu mu tudd Ousmane Sonko day jël ay nitam dem ñu votel ko dem ñu votel ko bu ko defee bu bu bu amee majorité mu jël réew mi gagné mais bu ñu amul fichier électoral boo amoon une majorité de sénégalais yoo xam dañoo bëgg changement te amuñu fichier buñ ko buñ ko changé comment ils vont y arriver comment ils vont y arriver maintenant il faut changer comme je dis rek bu euh, pour gàttal wax bi bu jeune yépp jëlee gaal yi génn dëkk bi dem seen yoon ay màgget kese ñoo ñuy jiite. màgget yi nag wax dëgg yàlla mënuñoo rey màgget yëpp parce que mag man mat naa bàyyi ci réew am na ñu ñu ci soxla lii changement nag kenn su ñun ku nekk da nga koy commencé ci sa bopp. commencé ko ci sa bopp mooy déjà nga gëm ne leader bi nga war a am waroo ko am parce que jigéen la waroo ko am parce que dafa amul xaalis waroo ko am parce que dafa ñaaw. waroo ko am parce que amul expérience waroo ko am parce que nga xool ci ay principe am ak i idéologie am nga avancé même dans vos collectivités là Hein? regroupez-vous, rassemblez-vous. Nous sommes tous les gens qui ne sont pas les gens les gens. Et ce que nous savons, c'est ce que nous y a beaucoup de gens qui sont avec nous, qui nous ont poussés à sortir parce qu'ils ont une voix, ils ont beaucoup de pourcentage qui nous ont fait le Makisal. Et ce que nous savons, parce que nous, nous voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, kulay lay woo yow kan nga voter man da yow yaa ma neex kan nga voter sa yaay sa papa say rak say mak sa famille say famille famille say xaritu xarit donc su fekkente ne loolu yëpp dafa am ñu yóbbu ñu ci pourcentage bobu il faut ñu génn bo suñu bop ci pourcentage bobu légui nak pour l'avenir. il faut que les gens sachent lan lañ bëgg def est ce que dañu bëggoo continuer ni rek est ce que dañu bëggoo continuer ni rek Macky Sall di napp ci gars yi benn par benn à chaque échéance mo am ñu dugg ñeneen ñu dess ci biti parce que le problème aussi de l'opposition mooy problème àndal ñàkk moi le problème opposition bi on a toujours décrié que l'état tax mënuñu avancer L'État ne excusez-moi l'état avancer la plupart du temps euh, euh, Pape tu voulais m'appeler hein tu m'avais dit que da nga bëgg tu dugg Pape Dia si tu veux nga woote donc pour voir suñu suñu handicap majeur opposition bi mooy on a toujours eu des troupes de Macky Sall comme nous ñu koy woowee on a toujours eu des troupes de Macky Sall mais au fur et à mesure comme Macky Sall mu ngi jël ay gars mu ngi jël ay nit ñuy dem kon nañu ñaan yàlla rek ñi fi nekkaloon dem mais nañu xam ne du mës a y aura toujours des gens yu toog pour def le boulot là d'empêcher l'opposition de s'unir am na ñoo xam faut rek mooy seen liggéey foo ay nit war a àndee ñu dugg fa wax lu leen di féewale yàq jaxase indi ay reproches aux uns aux autres ba nit ñi duñu ànd même ci instance de décision yu mag donc il y a toujours des gens yo xamné ne loolu mooy seen mission mais nañu jéem xamné suñu faiblesse moy suñu ñak ànd 2017 bu ñu àndoon kon heure bi ñun ñoo yor majorité parlementaire mais dañoo féwolo ku nekk top say ego top say euh, top say euh, say say bëgg-bëgg Zale Diallo euh, top sa bëgg-bëgg top sa ay sa ay truc de fierté ba demuñu fenn loolu nag tant que on reproduit ce schéma là ne pas mettre l'intérêt général di jiital suñu ay bopp man du ma topp ci ginnaaw diw man diw du ma jiitu man kenn nangam man li nangam man maa fi ëpp xaalis maa fi man maa fi gën a man maa fi gën a man maa fi gën a laa duñ ci génn on va toujours euh, ñun ñooy am suñu propre problème à chaque fois que l'opposition s'est unie dans des combats on a pu avoir la bonne lecture que ni état bi dafay xam ni là c'est du sérieux Maintenant, le prochain challenge mooy les prochains combat, bien les travailler dans l'unité pour que l'opposition opposition bi la majorité n'est pas du côté du président Macky mais c'est du côté du peuple loolu nag fait, jafe li tax muy jafe mooy kàddu yu waroo yi ñi nga découragé nañu il faut ñu remobiliser Euh, il faut nous def le maximum ba nga xam ne inscrire ci fichier électoral inscrire les dès à présent commencé à organiser ci seen ay les jeunes yi nga xam ne euh, mosuñu inscrire ngeen def faire ci liste def leen ci ay liste jël seen ay carte d'identité commencé itam di waxtaan ak jigéen parce que jigéen souvent dañ leen di jox ay financement ay DER ay machin té non lañ leen di amé ba jël sen carte d'identité hypothèque ci ay këru jambour parce que ay crédit ñu leen di jox commencé len di len travailler ñu xamni prochaine échéance Fofu le tournant historique du Sénégal fallait jouer joué parce que ñi ñu amal affaire fawuñu kafuñu am nañu euh, objectif amnañu fuñu jëm té ñom euh, def nañu sen maximum te dinañ am tous les moyens pour egg fi nga donc ñun ñoo euh, nan askan aussi affaire ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom. la on a toujours dit opposition que duñu bokk ci élection ministre de l'intérieur partisan def mais gis euh, Antoine Félix Diom, liggéey bi président di depuis le début même si fait c'est un sale boulot daf koy def muy à la CREI muy au niveau du mm, au niveau du procès de Khalifa Sall donc koku vous ne ko joxé euh, ministère de l'intérieur ce qui est sur moi war nañ xalaat ni euh, du ci djublu pour nekkal fi askan wi daf fay nek rek pour xol li nga xamni mom moy arranger président Macky Sall mu def ko donc ça reste toujours quelqu'un de partisan live bi gudd na torop mais je tenais à essayer de répondre à quelques questions pour mu leer parce que nit moomul boppam donc euh, merci beaucoup sëñ Dame Diouf merci beaucoup yow moom sama xarit nga sama sëriñ nga yaa ngi ci ginnaaw merci beaucoup donc loolu moo tax live bi gudd nii pour ñu leeral euh, affaire itam ñi nga xam ne destitué nañ leen euh, ñu leen di woowee ay victimes hmm, loolu aussi damay attirer attention nit ñi président Macky Sall fawul te moom carte la joukat bu mag a mag la te li muy joué nii euh, parewul sax pour perdre euh, partie bi lépp lu mu def rek c'est calculé à l'avance lépp lu mu def c'est calculé à l'avance le fait que mu am ñu ñu génnee ça va permettre de victimiser ces gens-là ñu am ay coow yu ñu leen toppee sénégalais yi sotal leen comme sénégalais sot rek la mën xeexu jàmbur moom moo ciy njëkku bu ko defee sénégalais yi sotal leen ngemb leen li nga xam ñoo naroon frustré wu ci ci ci ci pouvoir bi te nar dem dem ci opposition bi dootuñu ko defati dañuy yem ci ñooñu kon am leen lecture ngeen ngeen analyser ngeen xam ni euh, man gëmuma ni président Macky Sall dafa dafa réeroo ak ñooñu Samba Ndiaye maa ngi yow ñooy wax am na analyse yoo xam ne dinañ ko ci wax ci kanam parce que am na yeneen angle yoo xam ne trop machiavélique mais gis nañu ni mu ngi ci ñi génn euh, ay poste de responsabilité Fini nek ci ci ci ci ki bi ci ci ci Macky Sall gëmuñu né dañoo réro ak président Macky Sall dañu gëm stratégie la pour continuer de réduire l'opposition à sa plus simple expression c'est-à-dire que même les gens frustrés du pouvoir ne vont pas rejoindre l'opposition parce qu'il y aura des pôles trois grands pôles qui vont dañ koy former le pouvoir bi pour que nit ñi dugg ci pôle donc faites attention ne vous faites pas manipuler parce que nit mënoo nek ci ben appareil hein, depuis des années nga euh, am ci ay compte à rendre nga xey suba rek ne dàq nañ ma nga génn taxaw di xeex Amadou Ba il est il est comptable de des actes de Macky Sall euh, Touré il Mimi Touré il est comptable des actes de Macky Sall donc ñooñu wuñu ak président Macky Sall euh, stratégie de buñuy def euh, askan wi nak ñoo wara a yeewu tamit ngeen leen di euh, bu ko defee euh, bu leen xalaat naan non euh, non président Macky Sall ku wax troisième mandat mu écarté la c'est il est beaucoup plus malin que troisième mandat parce que xam na troisième mandat fan la yóbbu barki démb président Ablaye Wade donc je ne pense pas que mu nekk loolu mooy schéma wam am na nag yeneen schéma yoo xam ne mu ngi ci biir ñun itam dañuy observer parce que am na ñu war a dem demaguñu ñu ngi ñaan itam képp ku war a dem nga nga tak sa fit nga dem mo gën itam nga à ci opposition bi di plomber le travail de l'opposition il faut que les gens soient courageux parce que l'en rek la ñu mënu reprocher président Mac Idrissa Seck mo il est très courageux voilà il est très courageux parce que quand même euh, euh, courage bi mu am ni ba def le grand saut comme ça euh, ñi ngi ñaan ñi nga xamni ne ñoo a dem ci Macky Sall ñu am courage bi ñu dem maintenant comme ça il nous laisse au moins quelque temps de temps qu'opposition, opposition sans plus de personnes qui xam dañuy mal jusqu'au moment de ñu ay fracas wala psychologiquement qu'on se prépare à à tous les départs possibles <laughs> voilà nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ñun duñ nous, duñu dem ñun voilà man nous, fima tollu ni ci aduna ngeen bal ma nous mako ñakuma Nous kenn ñakuma doylu kenn mais sama bop suma su parce que xamna man li ma nar def ak luma ma narul def loolu mom wornama ni ma toogee nii non, la ma woré lenen nak woruma voilà lenen nak woruma voilà waaw même si c'est du c'est du c'est pas du courage c'est de la honte faut quand même être courageux pour s'humilier comme ça quelque part quand même ça reste du courage donc képp pou beug dem na nga dem nga assumer nga assumer ku dem jëlal bateau bi dem ni ko xale yi di defee jël gar gi dem lu ci fekk tamit nga nga nga assumer ko mais nga xam quand on choisit on renonce choisir c'est renoncer c'est renoncer munoo choisir euh, le beurre et l'argent du beurre et la fermière dem ci ci ci pouvoir bi jot les avantages après jot itam ci pouvoir bi voilà donc loolu itam euh, mënul nekk il faut ñun ñoo koy ñun ñoo koy donc je pense que tontu naa j'espère ci question yi lënkoon ci xel yu merci Matar parce que beaucoup de gens se posaient beaucoup beaucoup de questions euh, il était normal que nous leeral pas parce qu'on a des comptes à rendre ou parce que on on a quiconque à à convaincre mais parce que par courtoisie hmm, par courtoisie donc euh, par respect par rapport aux gens nous nga xamante ne ñoom ñom ñoo ñom ñoo and ak ñu ci dess nak moy moy euh, on reste toujours au service du peuple avec nos nos notre <laughs> maigre possibilité de le faire du euh, continuer ci ci lancer bi ñu nekkoon te xamni euh, amaguñu dara lo xamni mom lañ doon xex depuis le début life bi gudduna torop mais li li li am solo rek moy que hum, li am solo rek moy que nit ñi comprendre c'est quoi votre parti on a un mouvement qui s'appelle Force Citoyenne donc on continue aussi d'appeler tous les gens qui veulent euh, adhérer qui ils veulent devenir de bons citoyens s'engager dans le devenir de leur pays euh, Aruna merci on voulait vraiment éclaircir pour que nous nous euh, voilà donc nous nga Alain merci beaucoup donc nous ngi ñaan ngeen force citoyenne ngeen euh, bokku ci combat euh, donc aussi ngeen euh, de votre côté voilà <laughs> il faut nous confirmer que vous n'allez pas migrer non je pense que Mamadou Bayero actuellement c'est une parole que personne n'ose même plus le sortir que nous ma se parce que gis nañ nous, tey ñu ngeen transhumé ñu jox leen ay poste ñuy voilà donc euh, vraiment euh, kenn mënu fi nekk di di di waat sax euh, di di di wax nit ñi li ñu nar a def ak lu ñu bëgg def nañu ñaan rek wóolonte suñu biir jàpp ni ñi reste ci opposition bi ay lañu Aramder oui après vous allez venir dans le dans le la page envoyez vos coordonnées après on va vous prendre pour que gagne mën Adère. excusez-moi je suis pas habituée au perruque ça fait mal à la tête donc euh, après nous envoyer les nous adhérer bientôt les cartes de demande vont être euh, disponibles bientôt aussi on va lancer l'assemblée générale en décembre pour sur nos feuille de route donc on demande à tous les gens yu nga xam euh, gis-gis comme envie participer aux actions de ce pays sous la forme citoyenne de se battre de venir se battre et de ne pas baisser les bras et de ne pas se dire que nous trahir donc il y a plus d'espoir nous, on continue d'avoir espoir, pas pour les gens, euh, mais pour le, pour, le, pour le peuple sénégalais. Pour le peuple sénégalais. nous avons na ñu naan ma nuyu naa la mbaa Nous dem ci Macky euh, ñun problème euh, ak ak Macky Sall dañu andul ak mom, ak parce que ce qui nous mu doxal fii ci

pour di am lu ñuy wut yàlla nag moo bind nañu ñi te yemalewu leen wax dëgg yàlla du pour xas kenn du pour xas ne kenn amul ngor wala kenn amul kàddu mais yàlla am na ñoo xamante ne bindee na leen loo xam lu ñu am doy na leen voilà loolu moom am na ñu ko yàlla bindee loolu am na ñu ñu yàlla bindee ñoo xamante ne wax dëgg yàlla euh, yàlla teral na leen te amuñu peut-être aussi yenn yenn yenn coono yi ci àdduna Alain Djemeno, on n'a pas de représentant à Londres, on n'en a pas encore. Il y a plein d'endroits où on n'a pas de représentant, mais c'est nous qui, qui page break, Voilà. Donc, euh, <laughs> oui, on, va éviter de jurer, parce que tous ceux qui ont juré sont tombés tellement, de, tellement, de tellement haut qu'on est époustouflé. Mais bon, il y a le barna. Ni fides itam man wolu nalen. Man parce que je préfère positive damay positive rek ñi fi des gëm naa ni mooy ñu bax ñi ñi des ci opposition bi yépp ne lay wax jamono ji képp ku fi dess rek gëm naa ni gëm naa ni euh, dem donc ñu ngi leen di encourager ñu gëna ñu gëna taxaw gëna dëgër dem ngeen ñaanal leen itam ñu ñu gëna ñu gëna euh, euh, comment dirais-je accroché wu ci seen ay principe hein donc donc ñu mën a avancer ñu xam ni rek ñun ñëpp mën nañu ànd ah

ak de meilleures personnes euh, euh, euh, on a s'est trompé avec Macky Sall ko en 2012 on ne le regrette pas on l'assume parce qu'il fallait il fallait voter quelqu'un il fallait échanger ce qui était là pendant 12 ans on l'assume donc on, on, a élu Macky Sall il n'est pas bon on le combat on a fait des choix sur d'autres personnes quand on se trompe aussi on change de cap mais on reste debout on continue de se battre jusqu'au bout inchallah voilà jusqu'au bout peut-être que yàlla dinañu jàppale avec sunu persévérance nous am ku baax pour Sénégal pas ku baax pour nous, pas pour nous andal, pas pour nous, pas pour nous, ku ñu bëgg wala ku ñu pas pour nous min, ah hein, pas pour nous min mais quoi que maintenant, nous gën ci réew voilà nous gën ci réew mi Birahim Nia ci kanam tout di ngeen am toutes les sorties parce que beaucoup de de membres de l'opposition tout comme man ci presse bi la yëgee affaire bi donc je pense que les jours à venir vous allez voir nit allons dinañu dinañu génn nit ñëpp dinañu génn dinañu dinañu taxaw hmm, dinañu dégager seen ay ay en fonction de leur parti je ne peux pas parler au nom de toute l'opposition euh, def na ni euh, on a fait un communiqué le FRN a fait un communiqué que je vous partagerai sur ma page Inch'Allah c'est tous les partis du FRN ont validé valider communiqué boobu maintenant individuellement les partis vont faire des déclarations des conférences de presse pour voir cette position euh, encouragez-les aussi ne les découragez pas parce que c'est pas facile que des gens acceptent de rester dans l'opposition ñëpp xam nañ ni euh, opposition yombul ni l'opposition ni opposition de metti surtout quand des gens ont des responsabilités ont des partis mais encore une fois la politique ce n'est pas une question de moyens c'est une question de valeur il faut que la politique change il faut pas qu'on fasse de la politique parce qu'on est riche parce que quelqu'un qui vient investir son argent en politique c'est normal que demain il am ait donc même quand vous voyez quelqu'un de très riche en politique qui investit son argent pour avoir des militants qui les achètent financer mais c'est normal que bu un poste euh, mu sucré wu ci donc il faudrait plus investir dans des gens qui se battent pour am une vision qui se battent pour am fu ñu bëgg mi pour am ben ben ben ben énergie bu ñu boole ci xeex bi ben xam-xam ak benn capacité loolu moo ëpp solo d'investir sur des gens qui ont des titres parce que dès que nous sommes chez le ministre, madame le ministre, ça c'est peu importe. Voilà. Maintenant aussi, on a le complexe des titres. Nous Sénégalais, quand quelqu'un vient, on va dire mais non, n'a pas le kiff moujogé, là nous parcours hein? alors que des fois il y a un simple mot mot, modou mot xamné amna il y a mi buñu ko tégué fenn mo avancer mën na am lu mu jëriñ mot mi mot, ko wolu ñu avancer Nous avancer non donc euh, donc vraiment euh, Bati Diallo les élections c'est les voix c'est les urnes c'est les fichiers électoraux quand ça c'est biaisé à l'avance c'est très compliqué que le peuple décide on a vu en Guinée le peuple est dans la rue mais les urnes disent autre chose donc évitons que l'on dal le syndrome du troisième mandat on comptait sur euh, on sur euh, la Guinée avec la Côte d'Ivoire pour pour que nous aussi nous mën euh, mais malheureusement, euh, on a vu ce qui se passait. On a vu ce qui, ce qui est en train de se passer. Il y a des morts, il y en aura en Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas que ces gouvernants vont, vont, céder. Donc, nous, nous nous préparer, nous préparer à ça. Il faut qu'on continue de, de, <laughs> Merci, merci, Ndeifal. Il faut qu'on continue, nous continuons de faire, nous continuons de faire, nous nous bagner ñaan Nous mu may ñu c'est à la fin du concert qu'on paye les musiciens ñu jàpp ni fa saabu du fóot boppam donc tey fii taxaw di wax ne ñoo fi gën amul njëriñ nañu muñalante rek ñu xaaralante ba à kenn su ñun ku nekk di si des années dina xam ndax ñii dañuy transhumé mais xam nga itam di avancer en disant que ñëpp a yem kenn amul kàddu ñëpp a nar a dem ah loolu tamit euh, du encourager ñi nga xam ni ñoom ñoo ñoom ñooy xeex donc jàpp leen ni rek euh, ku nekk may leen ko ci crédit Mais tout tuuti euh, espoir jàpp ni moom mën def ni ñeneen ni euh, parce que itam transhumance bu Amérique, ça nous fait mal pour ça ça nous fait mal parce que c'est comme si c'est à nous-mêmes qu'on l'a fait parce que daf ñuy daf ñuy def ay handicap daf ñuy téré euh, maintenant on se met aussi de la du côté des des gens de Réumi, parce que Idrissa c'est Idrissa sec mais je pense aussi qu'il y a des gens de réumi ñoo nous ni amuñu rafetluwuñu nous les amené on se met à leur côté. On imagine qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont être solidaires parce que nous sommes gore, nous sommes gore nous rester avec leader. Parce que aussi, xeex ci réseaux sociaux dafa donc am ñoo xam sa sax vous bu des choses, méttiwul ont mënoon mais am ñu ont di dañuy xam nga sénégalais dafa ont a il y a des gens à force de les rayer à force de de les de les chambrer ils vont se dire autant ma tok xéxal sama sama sama sama leader mo gën suma ma itam dañ may moqué dañ may ré té dama ñeneen ñi dañuy am ndam ci sama kanam donc am na ñoo xam euh, d'accord ñu sax ci mbir yi mais pour ne pas euh, ñu ki leen dañuy euh, dañuy dañuy dañuy dañuy accroché wu ci fi ñu nekk voilà mu jaral leen ñu ñu ñu koy justifier xam nga pour xeex bi am ci seen biir parce que on voit le combat de loin hein. vraiment ñu ngi leen di gis yéen a ngi xeex euh, euh, te xeex bi des fois dafa am ñoo xam ne bu dul woon xeex bi sax xëy na ba nañu voilà ba nañu mais xeex bi moo metti ba nga xamante ne moo tax ñu ñu rester foofu ak ñoom tam peut-être ñu bëgg a sàmm seen ngor parce que dañoo ànd ak nit ki même bu nit ki juumee dañuy bëgg di ànd ak moom loolu tamit c'est à saluer militant tamit noonu la war a mel donc man je je ne blâme pas les militants parce que comme je dis encore une fois Sénégal les militants dañu far ñun on a beaucoup de de gens yu mel comme ñun ñoo xam ni euh, ce sont des, des, militants de la patrie, des militants du Sénégal. Le euh, Sénégal, nous dit avant tout. Sénégal nous dit avant tout. Donc sommes euh, le Sénégal rek la dit, wax wax ci parti tey mënoo leen ci leader ba mu jaral leen ñu ñu ñu contre les principes de la de la démocratie ak contre les principes de de de de de la morale mais on a des gens qui sont des militants sont des militants d'un parti yàgg ci màgg ci yaru ci ah, dugal ci jabar dugal seni seen i seni dom xam nga ñooñu tay même bu seen leader euh, transhumé euh, ñooñu day metti pour ñu bàyyi parce que dañuy bëgg goré ba dé ñi bëgg rester fini nek il faut aussi qu'on les comprenne ñu xawa <laughs> wañi touti chambre biñ leen di biñ leen di chambre té xam euh, ay militant lañu rek ay militant lañu parce que nit du joxé bop rot ci làmmiñ yéen ñëpp kenn si yéen ku nekk parti bi ngeen nekk da ngeen di ànd ak seen leader des fois seen leader bu juumee sax da ngeen koy bañ au fond de vous des fois mun ngeen xam ni leader bi munoon naa def nii munoon naa def ne mais da ngeen koy sotal ci xeex bi waaw parce que du ngeen bëgg ku ko ku dal ci kawam parce que yéenee nekk ay défenseur am donc il faut comprendre les militants de Rewmi dans cet état d'esprit xam ni aussi am na ñu bari ci ñoom ñu am lu leen metti am na ñoo xam ne itam jàpp nañu ni euh, c'est un bon choix parce que bëgg leader tax ba lu def ñu ni donc amuñu benn xarma yàlla ci nañu ni euh, Sénégal tax jugé pour lu ak lu bon ñun jugé kaddu ñu voilà donc li ci ngeen ñaanal ñu ah. <laughs> je pense pas que dinaa dem parce que comme li may wax man je pense pas que dina mën a transhumer parce que lolu foog naa du ci bëgg-bëgg bi mais xeyna ci jikko yi la euh, ak xeyna aussi ci dëgër bop bi mais ngeen ñaanal ñu rek voilà dem ngeen ñaanal ñu rek voilà merci merci Thiam Modou wa lu nekk dund nañ ko nek mais comme ñu ngi gor góorgóorlu boobu ba léegi ngeen gën ñu ñaanal rek te xam nit matul mais nak inshallah bu ci ñaan yi waajur yi taxawee ak ñaanu doomu aadama yi rek xeyna dinañu mëna continuer jusqu'au bout parce que nak ku nekk ak li nga bëgg amna ñuy xeex pour poste amna ñuy xeex pour xaalis amna na ñoo xam itam dañuy pour dugg dans la prospérité de la prospérité de l'histoire dans dugg dans les bons souvenirs am ay combats yu ñu les principes donc euh, ñepp rek soxla nañ leen voilà donc ñu ngi leen ñu ngi yemal fofu live bi je pense que j'ai répondu à toutes les questions c'était assez c'était assez long mais je crois que c'était un minimum quand même parce que wax ji bare na torop fan yi ma ne wax ji bare na torop ku nekk yaa ci ci wax mais mais je pense que il fallait que ñu def ko donc maa ngi leen di jaajëfal di remercier ñi nga xam ne ñoo doon seetaan sànq ba léegi di leen jox euh, rendez-vous très prochainement ñu xaar ba ba nomination yi et puis après ñu xool nag euh, bu ñu jógee ci ban taxaway lañuy taxaw ak FRN ak dialogue politique bi pour gën leen sonjat pour ñu ñu mëna néna <laughs> nee fañ fañ fañ wàcca caawa wa fi mo wax dëgg mom euh président Macky Sall wàcca caa nañu bu baaxa a baax parce que nak euh euh Modou Tia merci beaucoup il faut pas quand même ngeen minimiser ah Idrissa Seck quand même du ku ndaw parcours politique am yépp wax dëgg yàlla mu mujjee fii. Euh, Euh, vraiment wàccacaa nañu bu baax a baax a baax a baax moom kay nangoog bañ a nangoo fi nekk rek waaye <laughs> euh, waaye wàccacaa nañu moom vraiment on va mettre un peu de temps à se à se redresser mais bon nous tenons avec nous, nous tenons avec nous. Comme je dis, c'est à la fin qu'on va payer les musiciens. Nous sommes dans le la salle, nous sommes dans train de Ce n'est pas parce que nous sommes en train J'ai même vu des gens qui me menacent de nous faire des mouvements parce que nous sommes en train de nous faire. Parce que nous sommes en train de nous faire des choses. Parce que nous sommes en train de nous faire des choses. Mais comme nous nous sommes en train de nous faire nous sommes en train de nous faire des choses. En 2014, nous avons une étape de réunion ànd dugg ci ay auto, dem wuri Sénégal vraiment euh, euh amna ay liens yu nek suñu diggante hein donc euh, euh, vraiment amuñu won ben yéné taxaw tay di leen gis de ce côté là de Macky Sall Macky Sall mérité wul lolu voilà Macky Sall mérité wul lolu té ñom itam il ne mérite pas ça il ne mérite pas vraiment d'être passé de l'autre côté xëy amuñu leen gëna rek mais buñ ko amoon duñ fa dem euh, on, continue de leur souhaiter que du bien parce que politique du non non euh, on ne peut pas discuter avec des gens qui ci respect am ci ñoom euh, cofeel wëlbatiku di leen bañ bañuñu kenn ci ñoom du président Idrissa Seck réussite hein, parti réussir euh, wax une yalla sen réussite peut-être réussite au Sénégal parce que une réussite groupe là mais mënuñu len ñaanal pas lu dul ngeen réussir parce que ak nu munti on a passé des moments euh, à échanger des moments à nous battre ensemble côte à côte hein. donc euh, ça nous fait mal vraiment de vous voir du côté de président Macky Sall ça va nous faire mal un bon moment de vous voir assister au conseil des ministres à côté de lui ça va nous faire mal de vous voir euh, justifier et valider les décisions du président Maxal que nous avons combattues ensemble. Euh, vraiment, c'est terrible, c'est terrible cette politique sénégalaise, ce qu'elle nous pousse à faire, ce qu'elle nous pousse à devenir. Mais on continue vraiment de, euh, de, de, penser que vous êtes des gens bien, parce que vous ne pouvez pas... Et on va le penser de tous les gens de ce pays, opposition comme pouvoir. Même les gens qui sont au pouvoir, qui sont avec Macky Sall, qui pensent que cette politique, elle est bien, on leur souhaite du bien. Parce que souhaiter du bien aux gens, c'est souhaiter, du bien. Voilà, président Macky Sall, ak lu koy contre contre Wallahi lazim euh, euh, bu fekkente réussir na ñun dañ ko koy ñaanal parce que yéene nañ ko ko yéene nañ par la grande porte mu bañ fait le troisième mandat organiser élection dans l'histoire du Sénégal mu delloo euh, li ñu ko en 2012 xeex bi ñu ko xeexaloon mu delloo ñu Mamadou Diop mi dee mu delloo ñu coono yi nit ñi sonn euh, yéene nañ ko ko yéene nañ ko mu changer façon de de de vote yi mu changer euh, mu def ay réformes des institutions mu dugg dans l'histoire du peuple du Sénégal en écrivant vraiment de belles choses yéene nañ ko président Macky malgré que c'est notre adversaire parce que beaucoup ko Sénégal la am yéene nañ ko suba suba mu yeewu changé soppeeku nekk beneen nit jëmal Sénégal fi baax sénégalais gis ci seen njëriñ loolu yéné nañ ko ko kon nak mom lañ ko mëna a yéene ñi nga xamante ñoo doon bokk ak ñom ay table pendant des années et des mois pendant des années et des mois on ne peut pas vous vouloir de mal les mots que nous nous sortons les gens l'ont vu on a eu du mal à le dire on a eu du mal à le dire depuis jour nomination bi ba légui on est choqué on est sous le choc on est sous le choc parce qu'on se dit, euh, euh, même si ce n'était pas des amitiés, c'était des affinités. On a créé des affinités entre nous. On a créé du respect. Il y a même d'autres personnes avec lesquelles on a tissé des liens. Donc, euh, ça nous fait mal de les voir, de les voir avec Macky Ils sont compétents. Ils compétence on une compétence am mais on ne pense pas on ne pense pas parce que euh, bu ngeen def dara Macky Sall ils sont pas tous incompétents mais Macky Sall cap bi mu jël baaxul les chauffeurs chauffeur buñ yégué ci ils té auto bi baaxul duñ dem Macky Sall chauffeur yi ne ci auto bi ku ministre yi ci chauffeur yu bare yu baax mais bi problème bi donc euh, peut-être que nous avons des am qui nous ont dit ne mënunoo dire rendre compte la direction bi nous dañ koy changer on l'espère on n'est pas convaincu de ça moo ñu rester dans l'opposition on ne pense pas que à trois mois de de de la fin on peut tout rattraper xalaatuñu ko nous bu doon suñu sago ngeen toog suñu continuer jusqu'au bout voilà nous avons un nouveau départ mais c'est dommage vous nous avez lâchés vous nous avez abandonnés vous nous avez abandonnés. C'est comme ça que je le dis. Je n'avais pas envie de parler sous le, sous, le, euh, avec de l'émotion. Les gens savent que je suis très émotive en général. Mais franchement, j'étais très attristée. Voilà, très attristée. Vraiment, premier jour, j'ai eu très mal. Parce que je me suis dit, euh, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Un, un, homme comme ça, djar euh, et tout, persévérant, et tout pour finir au Conseil économique et social, ah, ça m'a fait mal. Ça nous a fait mal parce que surtout une institution euh, dont personne ne veut. Personne ne veut. personne ne veut. Les gens sont... Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, qu'on soit en colère ou pas, on est attristé. Voilà. Vraiment, euh, on est attristé. Euh, on ne pensait pas ça. Euh, bien que Macle peut-être Ben mandat réglé am ne ko mandat redresser les institutions après les jeunes mais ko muy dem abdiquer comme ça de cette façon quel que soit le ci quel que soit ci je pense que nous ñu wolu dinañ xamné ñun ñi nous ak ñom ci ak petite euh, pertinence nous en face de nous parce qu'ils ont choisi de nous abandonner en chemin en long chemin de combat et de guerre ils ont choisi de nous abandonner d'aller rejoindre euh, Macky Sall d'aller rejoindre celui qui est qui est responsable de tous ces problèmes que les Sénégalais vivent choisir c'est renoncer ils ont renoncé à nous ils ont choisi Macky Sall nous nous prenons acte et nous continuons de là où nous sommes donc euh, y nañu a un qui a yàlla li ci des borom remercier merci beaucoup merci.